léegi nag ñun ay néew ji doole lan tëlatul kenn di yor say million di jël suñu juróom di gattaf ku nu mënta dimbali na nu bàyyi ak li ñu yor looloo waral ba élection yi euh, bi bi inscription yi jotee inscrire nañu ba un mois inscrire nañu nous avons inscrit plus de plus de 5315 personnes dans le marché inscrit leen pendant plus de un mois léegi bi ñu defee loolu tey nañ suñu carte toog di déglu ndax dañoo gisul dara duñu leer ndax suñu carte duñ ko fal député boo xam bu subaa duñu nuyu di ko fal boo xam bu subaa du la rombee du la nuyu duñ ko def duñ ko def bi ñu defee loolu euh, Adja Ndeye Tické Ndiaye di wër dugg ci marché bi dugg ci marché bi ba ëgsi proximité ba ëgsi ci wax ko suñuy doléance mu ne moom man na koo faj ci kàttanu yàlla ñu siñeenteeg moom benn pacte mu ne moom dafa bëgg ñu woteel président de la Sénégal mag monsieur Macky Sall pour mu am majorité à l'Assemblée ñu ne ko ñun mën nañ la koo defal ci kàttanu yàlla mën nañ laa woteel mais nag lu leer lañ leen di wax bu ñu leen woteelee ba pare incha allahu rabbi te defoo leen li ngeen wax ak ñun ñu def la ñu def say moroom doomu ñun ci yooyu la ñuy yëngu léegi nag ñeente nañoo moom bëgg nañoo àggale leen siñente moom may may lancé commerçant yi ci marché central ak marché yëpp de Thiès ñu góorgóorlu am suñu fulla am suñu fayda xam ne ñoom seen intérêt personnel la ñu war ñun leen suñu intérêt bi dawal suñu dëkk bi jël leen carte yi ñu wateel monsieur le président du Sénégal monsieur Macky Sall mu gagné à 100 pour cent en majorité à l' assemblée nationale lu mu bëgg mu man koo def ci kàttanu yàlla ñu ci par intermédiaire yàlla ko jaarale ci madame euh, Ndeye Tické Ndiaye madame Ndeye Tické Ndiaye ndax moo dox lii lépp moo dox lii lépp yàlla ñoo ngi gërëm euh, tamit ku ñuy wax daaw daaw tamit comme tey Tické Ndiaye ñoo ngi ñaan mën a gisante ñoom pour am ay relation ndax ñoom lu ñor président rek la ñuy dox waaw ñoo ngi remercier ñëpp. leen wax nag yéen ñëpp ngeen demee kër ga ngeen def grande campagne da baax na ñëpp jël carte yi dañ koy maye rek nañ leen ko may ñoo xamante bu subaa dina nu nuyu wasalaam xam ni bokk nañ ci développement wu Thiès ku xam marché central fii ci Thiès xam ni waa Thiès a ko yor ku xam marché central fii ci Thiès xam ni ay jàmbaar rek a fi nekk te nu bokk ci dëkk bi bokk ci développement wu dëkk bi

bi inscrire jotee inscrire nañu na mu waree massivement ndax passé na cinq mille et quelques cartes yoo xam ne ni dañoo inscrire ndax ku ne xam na ni war nañu am carte d'identité yu bees waaye li ci gën a garaaw mooy bi ñu inscrire ba pare dañ koo téye toog jàpp seen jàpp ndax kenn fulaalu leen kenn faydaalu leen marché bi boo fu duggee gis nga ni mu mel bu tawee tey taw bi yëpp ci biir cantine yi la jëm mbedd mi bu tawee day taa ba kenn du fi jaar ñii nag boo leen faydaalu leen en tant que dëkk bi kon ku leen di fulaal ku leen di faydaal kon ñu ngi sant bu baax Ndeye Tické Ndiaye Diop lii wane na li mu ngi liggéeyal président de la république ndax ouest bi la dëkk dëkkul est waaye lii mu def nii tey ñëw ba ci est bi wane na ni ñëw ba ci nord bi wane na ni tey mu ngi liggéeyal président de la république liggéeyu Ndeye Tické Ndiaye Diop nag amul xaj amul mosel

ko yëg ku nekk bennoo fii ci Thiès war na encouragé Ndeye Tické Ndiaye Diop képp ku nekk bennoo fii ci Thiès war na kontaan ci lii ndax nag kenn mënul dem tabaay bàyyi fi waa marché ndax nag ci la ñu bokk ay jàmbaar lañu kon kontaan nañu trop di wax nag na ko président yëpp waa bennoo yëg ko ñu félicité ko ndax lii mu def dafa rëy kon Ablaye ñu ngi kontaan bu baax franchement waa marché yi nii toog ñu fas yéene nag jóg campagne comme ñëpp. yéex na sax waaye ñoom jël nañu engagement ne ndagam dee Tické ñëw na fi fasanteeg ñoom kóllëre wax nañ ko jafe-jafe yi wax nañ ko lépp kon bis ni ka tey dinañu jóg ànd ak Adja Ndeye Tické Ndiaye jóg falaat président de la république ci kàttanu yàlla incha allah ñu ngi nii toog carte yaa ngi nii nataal yaa ngi nii lépp ngi nii incha allah rabbi jërëjëf. waaw Samb kay jërëjëf sa wax rafet na ñun waaw man man ñu ngi may woowee Malka damay doomu Thiès ànd nañ day Ndeye Jaay Diop di liggéey ak moom depuis mu fi defee rentrée politique pratiquement ci at ak ay quelques weer mais ku ne xam na bii la secrétaire de la ci élection l'a nommée la Benno Bokk Yaakaar de Thiès Ouest waaye marché central waa Ouest tam fi waa Est tam fi waa Nord ñi ngi fi ay doomu Thiès a fi ay jàmbaar ay jigéen ñoo xam ni. ay jàmbaar lañu ñu ngi contribuer ci économie de Thiès ñu ngi contribuer aussi ci économie nationale du pays ñi ngi jaay ay légumes ñi ngi jaay jën si ministère de la pêche nekk ñi ngi jaay lu nekk kon multitude de commerçants ñëw nag seet si tey suñu suñu càmmeñ Abdoulaye Diop ñu naa ko sincère dafa ñu jàppante moom ba léegi ku ne xam na ko Thiès ku ko xamul ku ne dégg ko muy sincère bu xasee ba jàpp jàpp na waaye bu xasee ba xam moom nag fenn fu mu nekkoon ni ko suñu boppam ndaxte boobu ba koy àndal ku ne ay ati ati at ñu di la di la di la di la di la di la di la saafantal di la néewal doole yaakaar naa boo gisee jigéen ju mën góor muy la fédératrice la secrétaire générale du ministère de la de la pêche muy kan Adja Ndeye Tické Ndiaye waaw mu ñëw tàllal leen loxo di leen yéen samay frère ngeen samay sœur ngeen samay mag ngeen damaa bëgg ngeen àndal ndax président Macky Sall rek a ko nii moom saa yu xëyee suba midi matin soir ba président Macky Sall rek lay liggéey moom moo ko ñëw waaw ma bëgg nag président Macky Sall am ndamu Thiès moo tax mu tàllal loxo kan wa waa marché central marché yëpp nag ñoom tey dinañ def pour marché yëpp au niveau de Thiès keroog gis nañ ko fële marché Sam bu Medina Fall taaxi kaw mu dem seeti Adja Aram Ndiaye ci malaise yi ñu jël ay doo jox leen ko président Macky Sall couche kon yéen ànd ngeen ko jar a ma di leen wax ni leen ànd bi ngeen ànd ak moom nga taamu ko du ngeen ko réccu bu soobee ndaxte président Macky Sall la ko ñor te lii incha allah président Macky Sall dina ko yëg yéen yaakaar naa it tànn ngeen ko jar a tànn tànn ngeen doomu Thiès tànn ngeen ki nga xam ne rek a ko ñor muy kan la secrétaire générale du ministère de la pêche damaa bëgg ñu jàppante ndax moom jigéen la na li ci jigéen te marché central daanaka quatre vingt yëpp ay jigéen la muy nga xam ne moom mooy seen soxla xam ni ngeen bëgg nee na du ma dig kenn waaye lu ma am dinaa ko bokk léegi jàpp ngeen ko jërë jàpp incha allah rabbi dinañ ñëwaat fii au soir du 30 damaa bëgg nag inscrire ngeen ba pare plus de 5000 et quelques cartes mi ngi fii ci ne Tika Ndiaye Diop la koy jox mu jox dëgg nga tamit te président Macky Sall rek ko ñu ministère de la pêche bi muy liggéey am na bu baax xam nañ bu baax lañ koy liggéey ak résultat lañ koy def barki dem mondial lañ dem naan joxe fa ay millions joxe fa ay gaal joxe fa ay gilet de sauvetage jàppale mare yéen yéen nag yéen commerçant yee ko ñoom moom ko ñoom Thiès ko ñoom corps yëpp maa ngi leen lancé appel au soir du 30 juillet 2017 incha allah te d'ici 19 heures bu ñu délibéré ndam ji oh, yóbbu fan ci Benno Bokk Yaakaar jegeen ju mën lësi ajaratu lay jikko jaay moo